Ndongo Sarr ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay secretaire général bu CUSEMS Ndongo Sarr daanaka ab communiqué ngeen bind di wax lii fi nga xam ni fa la situation réew mi toll. ban jàngat yéen ngeen ci am yéen euh, ñi nga xam ni yéen ay yëngu ci euh, wàllum njàngale mi. waaw euh, situation réew mi moom yaakaar naa ni fi mu nekk nii ku mu jaaxalul rek yow sa bopp da ngay jaaxal da ngay jaaxal di. ndax nag li xew ñun dañ jàpp ni dafa garaaw dafa garaaw ba fu garaaw donc mën a yem ndax euh, samedi président de la république dafa def euh, benn discours boo xam ni li mu ci yëgle moom mooy que décret bi nga xam ni daf ko jëloon di convoquer le corps électoral pour que ñu war a dem ci ay élections le vingt cinq février prochain décret boobu eh bien daf ko abrogé loolu nag jeexital ba moom mooy que élection du am te moom ci boppam ci discours am waxul kañ la élection di am ñu nag dañ jàpp ni loolu dafa violer disposition constitution bi et jàpp ñu ni président de la république am na lenn lu ko may moom ci boppam mu xëy suba teer rek si coobaree boppam ni day yokk mandat woon loolu suñu Euh, charte fondamentale suñu sartu ndeyu réew mi moom ci boppam daf ko bañ parce que dafa am lu mel na question durée mandat bi dafa am li ñuy wax clause d'éternité c'est-à-dire que loolu dafa nekk loo xam ni kenn mënu ko kenn mënu ko changer kenn mënu ko donc modifier xanaa xëy na peut-être ñu am beneen constitution donc bu bees donc ñun dañ jàpp ni mesure boobu nga xam ni président daf ko jël teguwul ci lenn et que sous rapport loolu day violer constitution bi ba pare nag dafa natt indi ci dëkk bi jiixi jaaxa boo xam ne bii kenn xamul fan la ñu mën a yóbbu mais li ci gën a yéeme du loolu li ci gën a yéeme mooy liñ koy layale parce que lan lañ koy layale ni dafa am crise entre des institutions crise boo xam ne bii en réalité kenn documenté wu ko amul lenn loo xam ne lii teg nañ ci table bu wane ni crise bi dafa am ay suspicion kese c'est-à-dire que dañu njort ni dafa am lu am mais li nga xam ne danga nga njort ni dafa am te démontrer goo ko mais danga war a xaar au moins ba commission bi ngay wax naan danga nga koy mettre en place mais def ay saytu yoo xam ni mooy permettre ñu ni kat ah mbir mi kat nii la tëddee. mais loolu jàpp ni boobu mooy bu gën. mais dama ni loolu la xel mën a nangu man mënuma jàpp ni Mbemba mi kat dafa def benn njombe quelque part amuma lenn lu ma ko prouver ñu ne nañ jàpp Mbemba ñu tëj. si kaso bi mais bu boobaa day yomb présomption d'innocence mais ñëpp xam nañ loolu dafa am donc ki nga jiiñ donte li nga koy jiiñ grave mais da nga war a saytu ba mu leer la ni kat yow li ngay wax nii am nga firnde yi bu boobaa sur cette base nga mën a jël décision mais njort ni kat dafa am soupçon donc de de de corruption pour goo ko nga bëgg jël ay décision yu mel noonu loolu dafa nekk loo xam ne lii en tout cas donc c'est extrêmement grave et loolu képp kuy citoyen bépp kuréel boo xam ne bii da nga nekk ci réew mi ñoom ñëpp dañu war a ñëw ñu ànd taxaw tem pour que sartu ndeyu réew bi ñu resté ñi nekk au pouvoir nii en 2012 mais ñun ñoo àndoon di xeex naan bu kenn jalgati constitution bi donc dafa nekk loo xam ne lii kenn mënu ko comprendre que 12 ans après ñoom lañ doon xeex. tey jii ñoom ñu koy def ba tax ñun ñi nga xam ni booba ñoo àndoon ak ñoom donc di mobiliser ou dans le m que ñun tam ñu obligé tey ji di wootewaat pour di am même taxawaay boobu loolu dafa nekk loo xam ni dafa rafetul sax donc ci ñoom. gis nañ taxawaay ñi nga xam ne ñooy di centrale syndicale yi ñoom tam def nañ benn say ngir rek ñuy sàkku mbir yi war a mën a leer képp ki nga xam ne jàpp nañ ni euh, détenu politique nga ngir ñu mën la féexal ñoom confédération syndicale yi. mais xam nga ñun loolu euh, bi ñu koy wax yàgg na ñun xaaruñu ba tey jii ñu koy soog a wax ñun dañ jàpp ni ñetti at a ngi nii yoo xam ne euh, liberté yi nga xam ne sàttu ndeyu réew mi daf ko may nit ñi mooy ay euh, liberté d'expression ay droit de marche ak yi yeneen boobu ba léegi dañ koy nasaxal ci réew et loolu moo tax mu bare suñu ay ñoñ ay jàngalekat ay élèves ay étudiants mais au-delà ay simple citoyen yoo xam ni fi mu nekk nii ñoo ngi leen xayma si lu ëpp junni wala ñaari junni yoo xam ni ñoo ngi si kaso bi te yàlla xam na ni defuñu lenn loo loo xam ne lii sartu ndeyu réew mi mayewu ko boobu ba léegi ñun ñoo ngi mobiliser wu autour de ça pour que ces sénégalais yi nga xam ni en réel de façon arbitraire lañ leen jàpp donc ñu génne leen et ñun aujourd'hui ni ñu ko doon laaje démb noonu lañ koy continuer di laaj mais li ci gën a garaaw du loolu mm. jamono ji may wax ak yow lii nga xam ni centrale yi ñoo ngi wax ni en fait euh, nañu wut loi d'amnistie pour libérer les prisonniers politiques. Mm-hmm. mais ñun ñoo ngi jot ay xibaar yoo xam ni soo demee Cap Skirring tey jii am nañu benn collègue boo xam ne mi ngi tudd Mohamed Diop. dañ ko jàpp jamono ji may wax ak yow nii mi ngi ci mi ngi ci kële nu mu tuddati encore brigade de recherche bu Ziguinchor. soo ñëwee fii ci Dakar am nañu ay camarades kenn ki mi ngi tudd Ngeso Ka keneen ki mi ngi tudd Abdourahmane Samp. ak euh, monsieur Fall ñoom ñoo ngi nekk ci lycée Yoff bi ci arrêt car lañ leen fekk ñuy jël oto ñu jàpp leen. ñu leen ñu toppee ñoo ngi ñoo ngi actuellement ñu leen di déglu loolu nag dafa nekk loo xam ne lii en fait lu kenn mënut a nangu la ñun nag dañu mas a wax nii dañu bëgg bis bu ñuy dem ba politique yi di jongante seen biir que ñun ñu bañ bañ ci dugg mais nag. acte yi ñuy posé moom moo ñuy dugal ci mbir bi te bu boobaa bu kenn ñëw taxaw naan ñëw dañuy def politique wala quoi que ce soit parce que bu boobaa ñoom ñoo ñu dugal donc ci mbir bi donc suñu ñoñ yooyu nga xam ne dañ leen jàpp te jàpp bi ñu leen jàpp teguñu ko fenn nañ leen lireer ñu ñibbi donc seeni kër. li ne mel ñi nga xam ne dañ jàppoon. ñu mhm. nekk ci kaso yi nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër. li ni mel euh, est-ce que naruto indi ay jeexintal ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum njàng njàngale mi. waaw mais waxuma la jeexital si njàng meeg njàngale bi mais ku comprendre un tout petit peu situation bi nga xam ni tey fi tey moom la réew mi toll jeexital yi muy indi yaakaar naa ni dina déborder le cadre scolaire soo moytuwul ci réew mi yépp la décision yi nga xam ni dañ ko jël ni te teguñu ko ci ci yoon décision yooyu mais jeexi jaaxal la natt indi ci société bi yépp et li xew démb gis nañ ko déjà bare na ay localité ci réew mi yoo xam ni dégg nañ fa ay yëngu ak ay yëngatu yoo xam ni suñu jëlu woon décision yi sans doute que loolu du am donc encore une fois réew mi ñun ñoo ko bokk kenn moomu ko autorité yi nañu revenir donc à la raison xam ni dañ leen dénkoon ñu respecter loi yi bu boobaa jàmm mën na am ci réew suñ ko deful ñoom kat ñoom ñooy nekk responsable de benn conséquence boo xam ne bi wu na muy ci école bi walla muy ci beneen pàccu société bi. lan nga jàpp ni moom la ñu war a def ngir ñu génn ci impasse bi ñu nekk. mais lu ñu war a def mooy li nga xam ne li xëy na peut-être loolu la ñu waroon a doore moi je crois que depuis le début ci gestion processus électoral bi su doon respecté nañu li nga xam ni suñu ay loi loolu la wax li nga xam ne sartu ndeyu réew mi loolu la wax xëy na peut-être du ñu agsi fii mais ñëpp sénégalais yëpp gis nañ ni mais dañu doon nasaxal ay disposition yi nga xam ni moom la loi bi wax donc loolu xam nga réew dañuy wax ni justice am mooy kennu réew justice su doxul comme il se doit rek. mais citoyens yëpp dañuy nekk en danger pays boobu dafa nekk en danger et ñëpp xam nañ réew mi justice bi tëddewul njaaxaanaay ñëpp xam nañ ni réew mi justice bi mais bare na loo xam ne lii mën nañ ko ci wax loo xam ni problème yi ñu jànkoonteel yëpp si foofu la jóge assemblée nationale bi également taxawaay bi nga xam ne moom lañ doon xaar. donc ci ñoom mais ñëpp xam nañ ni taxawaay boobu assemblée bi amu ko. des na donc yooyu fekk réglé wuñ ko ñu xam ni kat dañu am ay pouvoir yoo xam ni ñoom ñëpp ku si nekk da nga am sa dignité mu am benn équilibre boo xam ne dañ koy respecté ay problème ay jafe-jafe yu mel nii du jóg ci réew mi. ci geneen wàll gi Ndongo Sarr euh, waxtaanee li nga xam ni moo jëm ci njàng meeg njàngale mi euh, daanaka ba ngeen jógee élection ba léegi gisaguñ jéego waaye yéen à chaque fois da ngeen di teg ay table euh, revendication ci li nga xam ni moo jëm ci table gouvernement bi lan lañ ci jot a saafara. waaw mais bon xam nga gouvernement bi moom syndicat yi ak secteur bu mu mën ci doon du ñu noppee di teg ci table bi ay revendication parce que secteur boo dem bis bu nekk dafa am ay problème yu fay posé wu et mission syndicats yi ñooy ñu porter préoccupation donc travailler donc loolu amul lenn loo xam ni def ci daf ci anormal maintenant ñëpp xam nañ ni depuis quelque temps ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite aujourd'hui booy xool euh, xëy na peut-être ñoom seen survie personnel moo leen gën a soxal mais maintenant loolu jeexital bi mu am moom mooy que préoccupation yi nga xam ne citoyens yi moom la am ni ñu ko waroon jëlee en charge jëluñu ko en charge moo tax sànq ma lay wax ni la autorités yi il faut que ñu xam ni seen agenda politique mënul leen soustraire ci ñu taxaw ci régler problème yi nga xam ni ñii leen dénk nguur gi ñi leen sal problème yooyu donc lañu ñu am maintenant ñun nag en tant que qu'organisation syndicale suñu ay responsabilité dañ ko jël chaque fois que ñu teg ci table yi ay préoccupations yoo xam ni dañu njort ni euh, fulaak faayda bi ci autorité waroon def pour que ñu régler ko fulaat fayda boobu dafa manqué mais bu boobaa daañu aviser par suñu ay stratégie yoo xam ne ñun suñu bopp ñoo koy tànn ñu def de sorte que ñu rappeler leen à leur devoir alors que loolu ñoom seen bopp ñoom ñoo ko waruloon xaar ñoom ñoo waroon di anticiper sur les questions pour que vraiment espace scolaire bi nekk espace espace boo xam ne bii day apaiser espace social bi day nekk espace bu apaisé. ñu ne situation décisionnaire yi ba tey mi ngi taga tembe. waaw mais ba léegi situation décisionnaire man nga naa ne daanaka ba ñu signé accord bi ba léegi mais euh, bougé wul bi ñu mujjee dajee ak ministre de l' nationale am na ay promesse yoo xam ne dañ ñu ko defoon e dañu waroon dem ci benn atelier mais boobu ba léegi ñoo ngi déglu gisuñu gisuñu dara maintenant nag loolu dafa nekk loo xam ne lii mënut moo tax fan yële ca gannaaw déposé nañu benn préavis de grève boo xam ni trente jours francs yi léegi mu expire maintenant nag bis bu expiré te ci question yooyu yëpp taxawaay bi nga xam ni ñoom autorité yi war nañ ko ci am amuñu ko ci mais bu boobaa également ñun lu ñoom lu ñu gis rek bu boobaa nañu xam ni en réalité ñoom ñoo ñu mettre dans des conditions yoo xam ni mënuñu def neneen lu dul yëngu-yëngal pour que ñu régler problème. ci geneen wàll gi ñoom nee nañ itam am na ak acquis yi nga xam ni def nañ ko ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàng mi. waaw mais xam nga le fond de problème c'est acquis yoo xam ni def nañ ko si njàng meeg njàng mi dama ni su dee dañu considérer protocole deux mille dix huit ba léegi am na ci loo xam ni réglé ko protocole deux mille vingt deux daanaka volet financier bi rek la ñu réglé te foofu naam yokk nañu salaire jàngalekat yi mais ñun ba ñuy xeex lu ñu doon xeex moom mooy li ñuy wax yamale. entre ñi nga xam ne ñoo bokk nekk ci administration bi di liggéey donc bi ñu yokkee salaire yi ñun dañu jàppoon ni kat loolu lu baax la loo xam ne dafa jëm ci yamale boobu ñu doon wut mais lañ ca teg loolu moom moo indi problème parce que ba ñu yokkee ba ñu yaakaar ni kat ñoo ngi jëm ci yamale dañu daal di yokk salaire yeneen yépp de sorte que dañu dellu siwaat ci situation ba ñu nekkoon mbaa nga xam ni xëy na peut-être ñàkk yamale bi amoon ci travailleur fonction publique sax dafa gën a creuser wu dafa gën a gaaw loolu mooy benn deuxièmement volet financier boobu ñuy wax noonu ni matérialiser nañ ko mais ana ñan ñoo ci bénéficier suñu ay ñoñ yi nga xam ni yëpp ay contractuel lañu wala yooyu nga xam ni ñoom dañ doon xeex ak ñun mais ñooñu nga xam ni dañ leen waroon a former ñu am seen diplôme professionnel ñu intégrer leen ci fonction publique mais fekk loolu defaluñ leen ko. mais ça veut dire que tous les avantages de ces accords ñoom mënuñu ci bénéficier donc même aspect boobu nga xam ne ñoom dañu jàpp ni matal nañ ko ñëpp dañuy gis ni donc bare na ci loo xam ni xëy na peut-être war nañ ko donc relativiser mu am nag yeneen i question yu mel ne question formation hmm. formation bi nga xam ni moom mooy permettre ñooñu am diplôme professionnel ba ñu intégrer leen ñu bénéficier ci accords yi mais fi mu nekk nii fi may wax ak yéen ni dafa bare ay problèmes yu ci am soo demee au niveau de la FASTEF fii mais formation professeur de philosophie yi nga xam dañ nekkoon ci programme spécial bi daanaka dafa tagga témbe soo demee INSEPS euh, autant pour moi SNEPS donc bu Thiès foofu yi tam formation bi bare na loo xam ne lii donc daf ci taggatémbe ak yeneen ni problème yoo xam ne yi xëy na peut-être donc temps bi mayuñu donc ñu wax ko fii mhm. donc encore une fois de plus ñun fi ñuy xaar autorité yi mooy ñu taxaw temm ci engagement yi nga xam ne ñoom ñoo ko jëloon eh bien ñu respecté ko sans quoi eh bien ñoom ñooy créer ay problème ci système bi ay problème yoo xam ne ñun ñi en fait su doon suñ coobaree bopp kese loolu du ci am. Ndongo Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi lay sant monsieur Mbemba. di fàttali nii yow yaay secrétaire général bu CUSEMS. tout à fait absolument. CUSEMS. tout à fait absolument. CUSEMS.